bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk yi ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi ñëw tey waxtaan luñ tudde aadaabu zifaaf fi sunnati l mutahara war cee ànd benn ustaas bi ñu wax Mouhamad Nasiruddin al albani rahimahullah gis gu ñu gis ne pénc mi li nuy seet ci wàllu sëy bari na lool bari na lool man nga ne ay bés gu nu dugg jigéen sol aw dàllam jóge dëkk ba ñëw dakaar jàmbat mbirum sëyam lu bari ci jigéen ñi góor ñi it léeg góor sol aw dàllam ñëw ba ca kër ga jàmbat mbirum sëyam bari yu muy am léeg-léeg nit jóge dëkk ba dëkk mu jaral ko paas ñëw jàmbat mbirum sëyam jooy ba jooy la waaw léeg-léeg jigéen def ko jooy ba jooy la yooyu ak yeneen yoo xam ne mi ngi xew ci pénc mi ne te itam tabarkàlla pénc mi lislam moom am lum ci loon loo xam ne nun ñëpp la mën a jariñ ndax itam sunu borom bàyyi wunu fi rek nuy làmbatu ak a fu nuy jaar déedéet daf ñu rëddal ay yoon yu leer léegi nag lu waral euh, nit dem fekk nit bëgg ko soxna doxal ak moom ab diir kenn bëggatul sa morom dox ak moom ab diir kenn ku nekk jël yet walla kurpañ dal mba kenn ku ne jaar sa roq di sikkal sa morom loolu moo waral nu bëgg indi waxtaan wii nga xam ne ki ko préparé mu ngi tudd Mouhamad Nasiruddin al Albani rahimahullahu bokk ci téere yi nga xam ne taalif na leen te ñu am solo lool mu jàngale ca teggin yi nga xam ne jëkkër ak jabar war nañ moom lañ war a nekkee ci kër gi te itam yem ca jàngale alxuraan moo ko jàngale ak sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñëwoon ngir firil ñu ko jàngale yoo xam ne kon ëpp na di sàggane nun ñëpp nu jëm caa jaar di am ci ñi nga xam ne it léeg-léeg seen borom kër ñëw jàmbat nu dara jox ñu téléphone nu woo leen wala seen jabar jàmbat ñu dara jox ñu téléphone nu woo leen nu cëree leenu lun jàppoon nu bàyyi ko noo ngi leen di félicité ci loolu te yëgal ne loolu yomb tamit ndax nit ñëw ne la kat sama boroom kër bii nangam léeg-léeg bu dee góor gu complexe day wax ne ah yow da nga may bëgg a booleeg adduna fekk ne déedéet ki sol aw dàllam di wuti wax yooyu di ko dox bëgg laa booleek adduna taxut bëgg toog ci sëy ba mook njabootam xëy na wala yu ne loolu moo tax waaye bu dee góor gu kii day wax ne da nga may booleeg sa samay mbokk waaw te tabaarkàlla yooyu mbokk yi yu am am solo ndax sëy sunu borom daa wax ci alquran ci saaruñu wax ruum suratu Italie aaya 21 mu ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa raxma ci suratu ruum aaya ñaar fukk ak benn yàlla nee na dafa bokk ci màndarga yi wane na mooy yàlla bind gi bindal góor jabar joo xam ne nit la ni moom min anfusikum ndax yàlla bu bindaloon nit jabaru xar wala jabaru bëy mbaa jabaru gëléem coow day bari ci kër gi lool la jabaru xar nga xam ne boone ko demal taale añ mu ne nga ne ko kaay e, togg reer mune ne nga ne raxasal cin li mu ne sunu borom bu nu defale noonu sunu jabar yi adduna doonu tukki moo tax mune miin miin anfusikum nga ne bu deew fas nga ne kaay taal cuuraay mu ñaxal mu dem mbaam nga ne ko kaay dem marché mu ŋaax dama ne yooyu sunu borom nee na dafa bokk ci lii wane ne moom mooy yàlla bind gim bindal nit jabar ju nekk nit waaw jabar ju nekk nit nga ne ko lu ñuy doy jabar mu ne li taskunu ilayha li taskunu ilayha ngir ngeen ngir ngeen di dale ci ñoom maanaam ngeen di noppaloo ca ca jabar ya li taskunu ilayha ngeen fay noppaloo ngeen fay amee ak dal ndeke góor bu amee jabar rek dundam gi war na stable poos ba yaram wa col ga léppam war na stable li taskunu ilayha bu fa li taskunu ilayha amut kon kon jabar ja lam doon jariñ jëriñatu ko waaye jëkkër ja lam doon wuute jabar amatu ko wa ko ma mawadda warax rahma mu ne mu def seen diggante lu ñu tudde nopp waaye def fa yërmande loolu lay wane ne yàlla moo mooy rekk mooy yàlla waaye sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ca bind ba tazawwaju alwadud alwalud mu ne denc leen ay soxna yu jonge na ngeen tànn ci jigéen ñi ay soxna yu jonge alwadud soxna soo xam ne bu ko jëkkëram xoolee barde alwadud mooy jigéen ju bëggu loolu Saalum Saalum ne diw fa bëggu waaw ñu ne Cheikh Tidiane si fa bëggu de <laughs> maanaam ku ko xool bëgg ko <laughs> loolu la Saalum Saalum ba waxoon ndeysaan waaw Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ko nu ko nettali tabarakalla la ko yàlla yokku wér tazawadul wadud mu ne takk leen soxna yu jóge ñu ne waaw mu ne alwaluud soxna yuy am doom nag soxna yuy am doom soxna yoo xam ne xam ngeen ne dinañu am doom ba mu des ay kaa yoo xam ne mooy kaawu feebar wéradéeg yooyu waaye du tee ñooñu nga xam sax dañoo wéradi na ngeen leen faj lu ngeen man ndax ñuy am doom nga ne ko yonent bi looy dayee doom mu ne fa mu mukaasirun bikumul ambiyaa yawmal xiyaam ti yëpp seenu xeet ñoo leen di indil base mu ne ma yaakaar ci yéen base ni politiciens yi bëggee base ñu ne Yankhoba ba nga ca Thiès bëgg na base ñu ne Talla Sylla nga fa bëgg na base ne keneen nag fa keneen nag fa noonu ñuy bëggee buñ jógee lu baree bari topp leen la yonent bi bëggee yomal xiyaam bu Oustaz Ahmed Dame Ndiaye jógee ñu bari topp ko bu imaam ja jóge ñu bari topp ko kenn ku ne ñëw ne yonent bi ñii ñëpp maa leen maay seen wayjur ñii maay seen borom kër ñii maay seen kilifa nangam nangam bu ko defee tabarkàlla ñu seet nu ñuy tappee ma daaye moo tax di wut ay pexe ba doom yi bari baaxul loolu diine du ko nangu di wut ay pexe ba doom yi du bari loolu diine du ko bëgg nangu moo tax nu ñëpp war nañu di ànd naan rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama laa ñaan nga ca alfurqaan aaya 74 rabbana ayu sunu borom xebla naa noo ñaan nga may ñu min azwaajinaa ci sunu soxna yi bu fekkee jigéen a ko wax sunu jëkkër yi wa zurriyaatinaa ak suñu njaboot gi yàlla na nga ñu ci may qurrata ayunin doom yu sedd bët wajal naa yàlla na nga nu def yàlla na nu samp yàlla na nga nu samp lil muttaqiina ci ñi am jom ñëpp imaaman ñu nekk seen imaam amiin yàlla na nu yàlla defal loolu yi tabarkàlla kon jabar li taskunu ilayha jabar ngir mu nekk xurrat ayun léegi nag mbokk yi euh, ma ñëw ci teggin yi nga xam ne moo war a am diggante jëkkër ak jabar la ca jiitu muy mooy ku ñu jox sa jabar mu sëy si fanaan si sa néeg tëdd sa lal yow ak moom képp ak yàlla loolu bëgg nañu jëkkër xam li liñ ko defal lan la Iba ki ñu def ci oto dox diggante yu sori indil la ko fi nga dëkk jëlub oto def ci jigéen jële ko xombal di dawal ba dakaar romb cees romb jam ñaajo romb puut romb dëkk yooyu romb romb tëngéej <laughs> di indi ba dakaar dugg biir dakaar romb ay quartier di laqar ci ba ñëw sa kër di koñ bi romb kër yi ba agsi sa kër ndeysaan daal di gaara ñu ne siit bi wàcc na nga ne sogg ci biir ndeysaan ñu ngi ko muur ba xamul fu muy jaar ñu lëngu ko yët la waaw nañ defaloon Iba Maar ndeysaan laa <laughs> ilaaha illallaah affaire bu day waar bi mu ñëwee moom soxna soosu nekk gan ci kër gi xamu fi kenn fi tubaab nekk sax xamu ko fi ñuy sël mu xamu ko euh, foofu dina dafa bëgg nga def li ñu tuddee mu laatafa mbulaata fa mooy bis boobu la war a yëg sag lewet bis boobu la war a sag lewet bu dee ci aaday réew mi dañuy doxal sunna si yonent bi daan doxal yu ba maar sunna si yonent bi daan doxal mooy bu ñëwee na lekk dara bu ñëwee na lekk dara eh, kera ba ay sa ñëwee sallallahu alayhi wa sallam soow lañ defaroon ñun bu dee sunuy aada laax la ñuy defar bu dee ci réew mi ab laax la ñuy def teg ko ci digg lal ba fab ab téeñ téeñ ko ca daal ne ko góor gi tibbal day sànn mu tibb seex ko ba noppi yàbbi lim seex ñu daal di jox teg ci loxol jabar ji ne ko seexal mu daal di seex ñu ne jabar ji tibbal muti bu daal di cheikh ñu ne ko bu ko war na yablil mu daal di ko yabli ci loxoom ñu jo daal di daal def ci loxol ku góor ki mu daal di cheikh Iba Maar am na ñoo xam ne fi ne lu dégg sax dañ koy seexlu walla ñu naan dafay joxe feebar mais ay fekk ne <laughs> allahu akbar yonent bi keroog soxna sa indi woon Aïcha ah, Asma bintu Burayd eh, ibnu Sakan moo ko indi woon nee na maa indi Aysa ma daal di jox ko soow ma defar soow jox yonent bi mu mu naan nee na bi yonent bi naanee ba noppi daal di jox Aysa Aysa sëgg ndeysaan am ker kersak naan soxna si ne ko naana liyee te jox ma ma naan ku baax kii naan moos <laughs> ndeysaan nee na bi mu ko joxee yonent bi eh, bi Aysa naanee ba noppi soxna si nee na ma joxaat yonent bi lekkat ga ne ko damaa bëgg nga naan ba ma xool fi si gémmiñ gi nekk ma teg fa sama gémmiñ naan ndax barkeeloo ko ndeysaan kon seet bi ñëw ci kër gi euh, Iba Mar nun lañ ko war a def mooy bokk ak moom dara lekk loolu la ci mag ñi jublu woon ci ay aada aada boo xam ne aada bu lislaame la ñu ko sunu mbokku inspecteur joxaane di waxe ndax sunu mag ñi kat li ëpp ci aada yi ñu daan def aada juñ mën a layal la ci fiq juñ mën a layal la ci sharia ndax sharia ak aada waxoon naa la kera ba fi sharia ñëwee ni ko aada dalale woon loolu lu ama am solo la kon mooy la ca jiitu indal bis bi nga xamee ne ci lañ la indil sëb seet ci lañ la indil sëb ndey ndeysaan foofu la war a tàmbalee nga lekk jox ko mu lekk jox la ngeen bokk lekk lu tax bokk lekk parce que lekk lekk mooy déterminer sëy bi yëpp li ngeen di bokk lekk noonu mooy sëy bi yëpp Iba Maar ndax sunu borom daa ne ku ma bëgg xam rek xool ci li ngay lekk fal yansuru l insaanu ila taami fal yansuru l insaanu ila taami ku ma bëgg xam xool ci li ngay lekk kon nag foofu yu bare nga ci biir nga bokk ak sa séet ndeysaan daal di lekk muy jawar ji bees ji ñaareel ba ci yi nga war a def boo amee jabar ab séet mooy nga teg sa loxo ca bopp ba léemu ko teg sa loxo ca bopp ba léemu ko ndax bakk si la képp koo takk ci jigéen am na ko ko bëggoon a takk benn ngoro nañ ba mu yàgg lool nga ñëw jël wala dañoo tàmbalee ngoro nga ñëw jël moo carotte ba ca marché ñoo yem bu carotte boo jënd rek am na jeeg bu ko romboon ne su ma dëppee jënd ko wala xaaral muuti xaalis su ma ñëw jënd ko yow nga ñëw ne ko coppet jël carotte ba jënd bu fi ràmmee ne <laughs> du ma wax jënd sama carotte ba day aw oh, jënd na carotte bu rafet de te doo mën a wax kaar ndax yëgoo ko ma tax ba ñëw ci kër gi ngay raxas carotte jeeg lu ni nga dugg ca ndax bët yi ko xooloon te jënduñ ko woon jigéen jiñ la mayit am na ko ko xeme man lool jépp jigéen juñ may ah ngeen baal ma nogoy rek laa defee ne <laughs> te sax moom xëy na wax dëgg yàlla ko dem ñaar bëggoon na ko nag wax dëgg yàlla waaw xëy na man bokkuma ca gaa <laughs> mucc naa ci waaye jigéen juñ may ju ne am na ko ca waxoon baat kooku ci wax baat léeg-léeg mu jóg ay pexe ah ba maar yaay takk sama ndaw si danga xam ne maag yow doo ko jariñoo waaw ah yaa fii saa gën diw takk la du la jariñoo ah te nag wa min sharri xaasidin isaa xasada mooy yàlla nee na nañ musli ci ayu ko añaan su jógee di pratiquer kañaan ga ndax su pratiqué wul kañaan gi xanaa dence ko ci xolam moom rek lay wàññi su jógee di ko pratiqué nag mën na laa lor dem ci bàyyi mor xujja mu joob la waaw waaye sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ngir bëgg sëy bi àgg yàgg mu ne boo amee jabar da ngay teel a yewi topp ya topp yi mooy ñu indi woon séet bi wala ñu wuti néeg buñ tëdd buñ buñ fanaani ñoom nga des yaag sa jabar ndeysaan foq musóor dagan dindi xijaab gi kaala kaala ibaadu googu ndeysaan dagan dindi ping ba jàkkaarloog létt yi fab sa loxo nekk teg ca bab ba allahu akbar daal di tudd yàlla subhaanahu wa taala bàkk ko ne bismillah allahumma inni asaluka min xayriha wa xayri ma jabiltaha alayha wa audu bika min charriha wa charri ma jabiltaha alayha ndeysaan nga léemu sa séet bi yàlla maa ngi lay ñaan ndaw sii ñu ma indil lépp lu xam ne lu baax la ci moom maa ngi lay ñaan yàlla naa ci teg sama bët lépp loo mooñ ci mbaax ci moom maa ngi lay ñaan bu mu ci dara ump waaye maa ngi lay muslu nag ci aw ayu aw ayam ayu jigéen ak lépp loo xam ne dañ koo mooñ ci mooñ ciw ay mooñ ci moom ciw ay yàlla na ma mucc yàlla na ma musal gis nga lii noonu la ñuy lee moom séet bu ko fee bu ko moor xuj a bëggee joob du ko mën a jàpp waaw kenn du ko mën bu ko jinne yi bëggee yàqal sa diggante moom duñu ko man lu tax léemu nga ko ba noppi waaye bëriwul ñuy am seet di leen léemu léegi léemu seet sax xewi na ndeysaan da ngay am seet tey lañ la koy may suba sa lay ñëw rek toog jàpp njàmburam bu fekkee yaw doo léemu ah bu njëkk dañuy teg ab seet boo demoon càlle tey ba ñuy waral 9h la ñuy tàmbali ba minuit saar wu mu paayi xam dañ ko jàng bindal ko yaasin xooj ko def ko noona ñu koy def léeg-léeg ñu ne ana ana ndeysaan bay diw ana bàyyi mbay mbay tuut mun la tuddoon mu ne maa ngi nii ñu ne ko jàngal yaasin muy muy wër muy wër séet bi di jàng yaasin yaasin al quran li hakim innaka la min mursalin ala sirati mustaqim tanzilul aziz rahim li tunsira xawma ma unsira abam fahum xaafilun di wër séet bi waaw di wër siit bi di ko léemu bu noppee ñu ne ana ana bàyyi galaay ñu maa ngi ni ñu ne ko jàngal ko euh, sóoratu al mulki ñooy jàng sajda ñu jàng moom daal juróom-ñaari saar yooyu sa yu da fa wa mu danañ ko ko jàngal saar yëpp door na nga jël siit bi saan euh, daal di koy teg ca faswa wa fas wa di yóbbu bu agsee nag ci la ko jëkkëram di léemu nii bismillah allahumma inni asaluka min xayriha wa xayri ma jabiltaha alayha li sax mbàkk si la yëmul ci ab séet kepp waaye ba amee oto lii nga koy léemoo lii ngay léemoo boo amee oto wala ñu indi oto ne léemul ma ko am na ñoo xam ne amee oto dañ koy dawal ba ñëw ne la oto baa ngi nii léemul ma ko waaye nit ñi nag ñoom dañoo def rek da ngay dugg rek bon merci mon Dieu euh, affaire tubaab yooyu déedéet da ngay fab sa loxo teg ci oto bi léemu ko boo amee kër teg ca loxo ca kër ga léemu ko boo amee fas teg sa loxo ca fas wa léemu ko waaye boo amee séetit jabar nga teg sa loxo ca bopp ba léemu ko loolu mooy ñaar lu tomb ci adabu zifaaf ci li nga xam ni moo war ñetteel ba bak si la mooy war ngeen julli ñaar rakka bis bi siit bi financé waaw mu yéen ñun bu siit financé ñun daan julli ñaar rak déedéet jeeg jaay nekk fële di ko xaxar di ko di saaga yaayam di saaga baayam ngeen baal ma ci baat yooyu waaye nu lañ koy def di ko saaga rek waaw waaw ku war a julli ñaar rakk bu lay saaga nooy jullee hmm? jeeg ja nekk fa lu lañ tuddee baat yu ñaawa ñaaw di ko saaga di ko xas di wax lu bon lu nu ñu dugg ca waaw léegi déedéet bu sit bi ñëwee yooyu waru faa am lu fa war a am ginnaaw bi nga gàttandoo sab siit ngeen bokk lekk lekk seenu blaax wala ngeen lekk ceeb wala ngeen lekk pom baa ngeen lekk banaana ndeysaan nga nga jël ci banaana ji tegal ko ci gémmiñam oh, te nag muy dëgg ci yow lu ngeen war a def julli ñaar rakk rakk si la mu ne jaa rajulun yuqaalu lahu abu jurayj wala abu xurayz mu ne mu denc soxna bi mu dencee soxna yonent ba alayhi salaatu salaam ne ko ne leen innal ilfa min allah miinante miinante ku ne comprendre sa morom ñu naan mu ci yàlla lay jógee wal firka mina cheytaan bañante ci cheytaane lay jógee kon ñaar ñu bokk kër di sëy ba mu yàgg bañante yonent mi ngi lay jàngal ne du yàlla cheytaane waaw parce que bëgg naa la lu la cay tegal maa raw maa la raw ba maar na coro coro bëgg naa la soxna coro ne ko maa la raw am déet waaw léegi bu ñu nee yàgg coro naan ko man dama ñibbi suñu kër da déet kon am na lu xew yonent bi loolu lay jàngale mbàkk si lu am solo la innal ilfa min allahi wal firka min ashaytan bëgg miinante comprendre sa jëkkër mu comprendre la euh, yonent bi nee na ci yàlla lay jógee dawante geeg bañante geeg xuloo gi min ashaytan waaw mu ne kon luy xew mu ne kon su fekkee sëb seet ñëw na fa murha an tusalliya waraaka rakaatayni da nga koy jox ndigal moom seet bi ne ko toppal ci sama ginnaaw ñu ànd julli ñaar rakk loo ci jàng baax na nag boo jàng ñaari rakk rakk yi ba noppi boo jàngee boo jullee ñaar rakk yi ba noppi nga tàllal sa loxo mu tàllal loxoom yéen ñëpp ngeen jublu penku nga daan ne allahumma baarik lii fii ahli wa baarik lahum fiya allahumma ajmac baynana maa jamacta bi xayr wa farrix baynana isaa farraxta ila xayr ok mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga barkeelal ma barkeel sama séet bii te nga boole ñu ci yiw boo demee ba tàqali ko jot nga tàqale nu kenn ku nekk jëm ca yiw kon ñetteel bi mooy ñaar rakkaay yooyu ku am ab séet da ko war a ànd ak moom julli ko waaye ndax nun la ñuy def ñun bis yooyu léeg la duñ tal sax julli ndax xaxaar yaag waral gaag séet ñu ànd si ñu ànd ak ñëw ak coow la ne kur kenn du xam foo nekk jàppal bayil rekk la kon loolu mooy ñaareel bi wala mooy ñetteel bi Macky la bu ñeenteel bi mooy bu fekkee topp yi ñibbi nañ nga war a waxtaan ak moom waxtaanu lal waxtaan wi taxa am doom ah woowu it mooy secret bi gën a rëy ci kaw suuf diggante jëkkër ak jabar ngeen war a séq dara allahu akbar kii ba mu juddoo ba léegi lii ngeen nar a séq su koo xam ku dem yow mas nga koo xam waaye li ngeen di bëgg a ni nga soxlaa séq kook moom nun la ko jinne yi soxlaa waaw boo amee séet bi nga bëggee am ak moom ay rapport ngeen baal ma ci baat bi nun la ko jinne yi bëggee am na jinne joo xam ne ku dem ay at a nii mi ko topp di ko def bopp bi métti wala ay règle de douleur wala ay nangam wala muy gént ay cauchemar ndek jinne jee ko toppoon ba tey nag musa yi ah, nga bëgg a joteeg moom jinne ji ne mayit damay joteeg moom kii sama séet la de nga ne déedéet sama séet la mu ne sama séet la ah waaw <laughs> bu ko la te bu jinne ji joteeg moom jinne lay jur mbaa mu jur njuma mbaa mu jur ko xam lu nit ñi xamut mbaaw muy gis lu nit ñi dul gis maa la ko de ah kon nag nooy def sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon nga xam ne moo ñëw li yuxrija naas mina zulumaati ila nuur problème bu ñu am rek indi na solution mu ne da naan bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana mu ne dang naan yàlla noo ngi lay ñaan nga dàqal ñu shaytaane te li nga ñuy wër wërsëgale ci doomin nga dàqal ñu ko seytaane yónnante ba nee na seen waxtaan woowee ca lal ba bu ca doom sosoo seytaane mënulu ko dara dara dara loolu mooy bu ñeenteel bi bala ngaa joteeg sa soxna dangay ngay léemu bismillah ndekki foofu dañu wax bismillah waaw waaw bismillah allahumma daañu fi tudd tur yàlla waaw ñaari yoon sax bismillah allah ak allahumma jannib na cheytaan wa jannib cheytaan ma razaqtana génnel cheytaan yi néeg bi na génn kër gi na génn quartier bi na génn dëkk bi cheytaan yi daw di reetaan naan ko am nga sens <laughs> ñeenteel bi mooy loolu bu juróomeel bi ci adabu zifaaf teggi ni jëkkër jabar mooy nan ngay joteek moom nan ngeen di waxtaane maanaam rapport yi nu muy xewe ngeen baal ma alxuraan la yàlla wax nisaaukum seen jabar yi xarsun lakum seeni tool lañ fatu xarsakum dem leen seen tool an na shi'tum nu mu leen neexe kon sañ nga ko féete kanam sañ nga ko féete ginnaaw ngeen baal ma ci baat yi waaye nag dañuy jàng Fallou Cissé koy wax sañ ngaa tëdd ci kawam sañ naa tëdd ci sa kaw li ñuy tere daal mooy fi nga xam ne du fa amee doom bu leen fa jote dina ci ñëw ci kanam léegi mu ngoog al yahuud dañ ko daan def di joteek seen jabar yi fi ñuy demee toilette waaw yow dañ ko daan def euh, sunu borom yónni alayhi salaatu salaam mu ne ba mu jàngee nisaakum arsun lakum fa qaala rasulullahi muqbila wa mudbira iza kanat fi alfarj foo mën a féete amulum amulum ngaañ bu fekkee fa ngeen di jotee mooy fa muy amee doom amul nag bis bu ñuy teree amul heure bu ñuy tere bëccëg baax na guddi baax na di lundi au au dimanche defe naa lu ñu koy waxee waaw amul bis bu amul bis buñ naan tey moom déedéet xu cheikhu moomu la ñu xamul kum doon ginnaaw suñu borom daf ne an na surtout nu mu leen neexe ak fu mu leen neexe léegi amatul leneen xanaa daal bul def nit ñi di la gis waaw yooyu jar a bàyyi xel la kon boobu mooy euh, juróomeel bi juróom benneel bi mooy araamal nañ kuy joteeg jigéen fi muy demee duus ngeen baal ma ci baat bi waaye nun lañ koy jànge yonente ba nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne jote nga ak sa soxna foofu muy demee toilette bu yomal xiyaamee yàlla du la xool du xool ku la xool dana la duma dana la yóbbu sawara inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu nag Iba Mar bokkut ak feebar yi ci tubaab yi di wax moom bokkut ak feebar yi ci tubaab yi di wax ndax fi yàlla sàkk ngir ñu fay jote bokkut ak fi nga xam ne moom sàkku ko ngir ñu fay jote kon bu fa nit di jotee ak soxnaam ma ngay def yoo xam ne yu doy waar la yoo xam ne boo ko laajoon ñiy yëngutu ci wàllu wér-gu-yaram daal la ci wax yoo xam ne ñëpp ko war a moytu ma laa nag bi ko yàlla xaraamalee ndax lu yàlla xaraamal rek dañ ko war a bàyyi bi ma demee Espagne benn xale dafa maa laaj waaw seen bi ginnaaw bi nu rafetloo conférence bi nun ñu koy waxee daal ba jeexal ne ma dama am benn question lu tax yàlla araamal mbaam xuux mën na ko feebar bii xew léegi <laughs> waaw feebar bi feebar feebar bi xewoon ci mbaam xoox yi ñu koy wàll nit ñi mun naa mën ne ko feebar boobu moo tax yàlla araamal mbaam xoox wax naa dëgg ba ko yàllay araamal moom yàlla xamoon na feebar bi xamoon na ne dana ñëw ba ay l'an deux mille huit neuf jëm si dix feebaru mbaam xoox ñëw ci nit ñi ñu koy wàllante waaw xamoon na ko waaye léegi kon bu yàlla araamale dara rek bàyyil xaaju Ibrahima Sakho nee na bu yàlla ni fëx leen bu la kenn njëkk a fëx waaw yàlla jékki-jékki rek fekk ñu sa kër kër rek mu ne daw leen Iba Mar taxaw naan mais pourquoi pourquoi ñuy daw waaw maak maak euh, Ma maak Assane ak Mbàkke si la ñu samp suñu xelul tir rek laaj ñulu tax ñu daw ñu daw ba àgg fële ci bunt Pikine rek ñu ne Euh, président république moo nekk jam ñaajo nee na ak si am deux milliards léegi nun bu ñu yokkee suñu xel nun ñett ku am ñu am am déet waaw ku am nu am Hadj a Sakho mu ne buñ demee dawa dawa dawa daw ba bunt pikin ñu ne waaw dafa am gaynde gu rëccoon euh, fële ca aan euh, moo nekkoon sa cœur ñun ñu départ bu ñu yokkee suñu xel ku raw ñu raw waaw maanaam bu yàlla ne nangam baaxut na ko ñëpp bàyyi jigéen ñi léeg-léeg nit jàmbat ne loolu boroom këram da koy séq ak moom loolu jar na ñibbi sa kër bàyyi jar na tas loolu kenn du ko def inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku ko xamutoo ni dellu ci ginnaaw ni tuub naa ko ku ko xamut dellu ci ginnaaw bu baax a baax ne tuub naa ko ndax nit du def lu mu gis mbaa mu dégg ko rek jéem caa nekk waaw tabarkàlla loolu mooy rekk si la juróom benneelu tomb bi ci euh, adabu azifaaf loolu nag ay addis yu bare bare bare la ci yonent bi indi sallallahu alayhi wa ngir bëgg ñu moytu ko ñeenti addis ñëw na ci mbaa juróom mbaa lu ko ëpp waaw yoo xam ni yëpp day aaye loolu bokk na ca laa yansurullahu ila rajulin yaati imraatuhu fi duburiha mu ne yàlla du xool góor gu joteeg soxnaam fu dul fi muy amee maanaam euh, fi muy demee toilette ku fa joteeg moom doo bu yemal xiyam yàlla du la xool laa ilaaha illallaah mal'uunun man ya'ti nisaa fi mahaashinihinna mu ne yàlla bu yàlla yërëm ku joteeg jigéen ci ginnaawam maanaam fi muy demee toilette moo xam ne ku joteeg jigéen ju gis ay régalam mbaa mu joteeg moom fi muy demee douche wala mu dem ci xiramkat lam ko wax dëgg la mu dëggal mu ne dëgg la ku ñett yii ku ci def benn faqada kafara bi ma unzila alaa muhammad gëmatu alquran la ilaha illallah mu ne ñett yi ku ci def lenn gëmatu alquran ñett yan jotee ku gis ay réglam loolu euh, bu fekkee nag ndaw si moo na mu jëkkëram ba nëbb ko loolu ba xamu ko ndaw si am problème bu fekkee ku góor ki nag moo ko tey moom mooy am problème bu fekkee tëyu ko nag ba mu yàgg mu door a xam ne lii kat lim def li ñu tere la war naa sa rexe ons mille onze mille cinq cent te bañ koo defati euh, kon jote gi am na seet bi ñëw na léemu na ko bi mu ko léemoo euh, dalal na ko ak lekk bi mu ko dalalee ak lekk waxtaan nañ bi ñuy waxtaan lii mun waxtaan wa bi ñu demee bay jote jote wut ak moom ci fi muy demee toilette léegi nag jote na ba pare mu mu juróom-ñaaral bi dafa war a jàpp al wuduu bayna al jimaain maanaam góor gu bëgg a jote soxnaam ñaar yoon ci guddi gi Iba diggante bi war naa am am njàpp waaye joteeg moom te ba mu neex rek nga tàmbali waat déedéet loolu kenn du ko def lislaam da koy aaye bu ñu ki joteeg soxnaam ba noppi dañoo bëgg mu mu daal di ca mu dem tuuri ndox maanaam saw yi raxasu jàpp boo laajee seex gay gàndigaal loolu lu muy wàññi bu la ko waxee rek dutu ko defati ñoom ñi ñoom ñiy jàng wér gi yaram xam nañu ñaari ndox yi jóge ci góor walla ñeenti ndox yi jóge ci góor tey jaar ci benn benn benn wenn yoon bant boobu nga xam ne ci la saw di jaar ci la mën yu di jaar ci la mës yu di jaar ci la wët yu di jaar am déet kon embouteillage am na circulation comme circulation am na nag dafa am benn policier buy nekk foofu ci naq nga xam ne mooy joxe ki war a dem moo lay wax demal policier bi <laughs> lu jar a xel la policier boobu bu fekkoon nit day foog soxnaam policier bi day wax ndox mu ndox mu oyof ne ko yaay dem yaa am priorité kaay nga dem koy fee ndox mu bu xam nga li bëgg a wax bu fekkee nit ki dem toilette wala muy saw police bi di wax ndox mu ndox mu ñuy euh, wax yow nga kaay yow yaay dem bu fekkee daa bëgg saw police bi mooy wax saw mi yow yaay dem bu fekkee day joteeg soxnaam nag police bi mooy wax man yu yow yaay dem gis nga su nit ki joteeg soxnaam ba police bi ne man yu yaay dem li fekk sawiwul ba man yu mu jeex police bi du jox du wax saw kaay dem du wax mës kaay dem du wax wët kaay dem kon ñoom ñëpp dañuy bloqué wu foofu ñuy bloqué ci naq bi nag day indi feebar yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa ngir mu jàngal nu loolu kon boo paree da ngay dem nga raxasu jàpp waaw su ko defee bu bu la soxla si soxla bu la soxla si soxlawaatee ci guddi gi ngeen mën a jotewaat am na ñoo xam ne ñu wax nag déet loolu kenn du ko def ñaari yoon waaw loolu kenn du ko def am na ñoo xam ne loolu lañu yaakaar tabarkàlla waaye <laughs> mu ngi noonu daal juróom-ñetteel bi njàpp li baax na waaye sangoo gën. njàpp li baax na de waaye nag sangu moo gën joteeg soxna si ba noppi daal di ca saasa nga dem sangu ji moom la borom lax duri wax naan ku ñimiwul ndox amuloo waajale ndox mu tàng bul joteeg soxna si moom sax àgg na ba foofu moom moom moom borom lax duri àgg na ba ci soo ñiimul ndox mi nga xam ni amoo gaz mënoo tàngal ndox bërigo bee fi nekk <laughs> yaasal jalali waaw bërigo bee fi nekk de te te kenn ubbu ko léegi joteeg soxna si dem tànk ci di sangu moom am nañu ko mënut seen xel xalaatu ko te nag amoo gaas mu ne nooy def borom lax dëre mu ne bàyyi fa soxna sax moom jaral na ko parce que moom gaa yi buñ déggee yonent bi wax la ñuy déggee ci wax moo tax tabarkàlla juróom-ñeenteel bi sangoo ndoog sa jabar bi nga amee séet mbakk si la séet bi ñëw ngeen waxtaan ba noppi avant ngay joteek sa soxna da nga koy posé ay question séet bi mën ngaa jàppa mu ne jàpp ko ko mënut nga ne ah mu ne jàpp ñëpp ko mën nga ne ko jàppal ma xol mu daal di jàpp raxasu def ba mu jeex su fekkee mën na nga ne ko am nii kay la mën ngaa sangoom mu ne sangu nag sama tàntaam ma ko doon jàngal waaye daa àggul xam nga jigéen ñi bu ñu bu seet di dem ci ci ci tàkkusaan gi noonu yaa jee koy sang nga xaw ma tànt jee koy sang fa la koy waye nag suq mi ci ballaago barke ji mi ci ñaan yi bëkk bii ga bamba ba xamul aay na yow sa bàjjen moo defoon nii sa tànt def na way yooyu ñu leen dewel ci tàkkusaan gi dégg nga loolu euh, bu fekkee ne jabar ji laaj nga ko nu ñuy sangoo mu xam ko baax na bu fekkee xamu ko nag dangeen di ànd yéen ñaar dem ca toilette ya mu summi yéreem teg fële nga summi sa yére teg fële di def muy gis di def muy gis ba ngeen bokk sangu yéen ñaar ba kenn ku nekk am sangoom jeex loolu bokk na ci li nga xam ne may nañ ko jigéen lu tax Muawiya ibnu Hayda daf na yonent bi alayhi salaatu salaam mënun sunu awre yii ci sunu biir tuba yi kuñ koy nëbbu ak ku ko war a gis yonent bi ne ko nëbb ko ñépp ba mu des sa jëkkër bu dee jëkkër ñu ne ko nëbb ko ñëpp ba mu des sa jabar kon jabar bu ko neexee gis li jëkkër yor jëkkër bu ko neexee gis li jabar yor markazuna yunaadi markazuna xam naa yéen itam da ngeen wu ko wuy si markazuna tabarkalla ndax mi ngi woote fukkeel bi mooy njàppal ku yor janaba balaa nelaw boo joteeg soxna lu la ñu tuddee janaba yéen ñaar ñépp ku ci nekk am na janaba bu sangu munta am jàpp munta am na tiim am tawadda waxsil zakaraka xabla summa ah, nim summa nam loolu la yuntu baxoon mu ne ko jàppal raxasal sa sakara te nelaw waaye tëddaaleeg jana ba yeeg ñoom seen yëpp di nelaw la faddal yaa ko teg sa bopp bu sab siet tasee yawa waawo bu sab sëy tasee yawa lu tax loolu ngay def day tax seytaane mën laa jéggi man laa foye te seytaane ku muy foye léegi tey mu mu mu bule la bule maanaam noonu ñuy def football ne la nga génn ci biti génn ci sëy génn ci sëy moo tax yooyu kenn du ko def te ëpp na ëpp naa sàggane mu ne salaasatun laa taqrabuhumul malaayka ñett ngi nii ñoo xam ne malaaka du jege nga ne ah mu ne waaw ngi nii ñoo xam ne malaaka du leen jege jiifatul kaafir wal mutamaxid bil max bil xaluux wal junub illa an yatawadda waaw ñett ñooñu malaaka du leen jege kenn ki mooy yéefar bu faatu yéefar bu faatu malaaka du ko jege mukk mukk mukk waaw beneen bi muy al mutamax al mutamaxid bi eh, alxaluuf xeetu xeetu ñax la gu naqari xet ma naqoo tudd waaye daal xeetu ñax la gu naqari xet nit ki di ko galax ndikoo waaye bu ñaar bi te bu ñetteel bi te mooy bu ñu ñun mooy ku yor janaba li fekk jàpput malaaka du ko jege te ku malaaka jegewul nag jinne yi ñoom ñu ngi fi parce que boo gisee yàlla bind malaaka yi bind jinne yi ab xeex la bu nekk seen diggante ñu ngi fi euh, lu la tax malaaka yi ñoo ñuy garde lu ko mooy jinne yu alag ñu njàpp loolu nag du farata du tojit njàpp loolu du toj déedéet euh, kon loolu mooy bu fukkeel beeg benn bu fukkeel beeg ñaar mooy su njàppali munta am nga tiim tiim mu ngoog fukkeel beeg ñett mooy bala ngaa nelaw sangul maanaam bu ngeen jotee ba noppi bala ngaa nelaw sangul waaw fukkeel beeg ñeent mooy bu soxna si amee ay bu nekk ci réglam bul ko jege maanaam bul ko jege ji mu ci jublu bul amee moom ab jote loolu la alxuraan di wax ca suratu annisa yasaluunaka an il maxiidi wala ca suratu albaqara qul huwa adan faatasilu nisaa fi lmaxiidi waaw faatasilu nisaa fi lmaxiidi wala taqrabuhunna xata yathurna fa ida taharna faatuhunna min xaytu amarakum allah inna allaha yuhibu tawabin wa yuhibul mutatahirin sadaqa allahu alazim sunu borom nee na yonent bi danañu la laaj mbirum règle yi mu ne daañu la ko mas a laaj yasalunaka daañu la mas a laaj mbirum règle yi jigéen di am lan mooy règle lu muy dikkee lu muy jëriñ sunu borom waxal ko ci dara ce yooyee pour wan ko ne ko alxuraan du téereb science mu am yëm ko ci juj mooy lan yéen daal même bu ngeen xamul luy règle kañ lay ñëw nan la ko ween yi di aylantooye bu noppeel ñaata fan lay toog boo ci jotee mu mu jël weer comme xamu leen loolu fa'tasilu nisaa fil mahid yéen bu seen jabar amee régal rek na fégal <laughs> na fégal bu mu joteeg moom léegi nag yeneen attee nag borom xam ñoo ko ci indi mooy bu la neexee fab sa lex teg ci lexam bu neexee weesu fa bu la neexee weesu fa waaye nag bu leen am ak jote mu ne bu seetee nag ngeen joteeg ñoom fa yàlla ne foofa la ñuy jotee min xaytu amarakumullah nga ne ha mu ne yàlla yuhibbu tawabin yàlla bëgg na ñi ñii laab laabug biir wa yuhibbul mutatahhirin bëgg na ñuy laab laabug biti waaw laabu zahir ak laabu batin kon gis nga euh, ñëwoon na léegi ci addis yi ku joteeg soxnaam fekk mi ngi ciy régalam mbaa mu joteeg soxnaam ci fi muy demee toilette mbaa mu dem ci gisaanekat mu wax la nga gëm ko faqad kafara bi maa unzila ala muhammad kooku weddi na li ñu weddi na li ñu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku ko def te teyoo ko nag kafaaratu man jaam alxaay ku jote sa soxna te fekk mu ngi ay régalam te xamoo ci dara ndax góor ñëpp bokkuñu yeewu foofu <laughs> góor ñëpp bokkuñu yeewu foofu nga def ko ba noppi xamoo ci dara ginnaaw nga xam ko da saraxe dinaar wala nisfu dinaar avant dévaluation 4500 la woon léegi bi dévaluation bi jotee léegi gaañaa ngi koy xayma ci ay 11000 11500 waaw tubaarkal dinaar wala nisfu dinaar te bañ koo defati nag te bañ koo defati léegi bi soxna si amee réglam fukkeel beeg juróom-benn ci aadaab yooyu lan moo fa dagan lépp fa dagan ba mu des jote gi. isnau kulla cheyin ila nikaax la yonent bi wax lu leen neex def leen waaw <laughs> ba mu des rek jote gi moom bu mu am ginnaaw daa nekk ci ay règle looloo tax parce que règle daa am ay atte yu ci nekk mbirum faset da cee aju ah mbirum teen ji ca la aju ah mbirum jàpp idda ca la aju wala ba mbirum jàpp idda kon ca la aju ngeen baar ma ci teen ji gi yooyu yëpp daf ci am gàllu ci ay règle moo tax boo wàccee sa jabar fekk mi ngi ci ay régalam defoo dara dangay ngay fo da ngaa yab diine ji jigéen ñi jékkam yàgg mu naan man de ker ba ma paate wàccee ci samay régal laa tolloon déedéet loolu tam di su ko defee noonu pour bëgg a dab dabaatal sëy su ko defee noonu waaw eh, fukkeel beeg juróom-ñaar ndaw si gis nay régalam set na sa ngoogut waaw set na sa ngoogut wala ndox amut ndax jote gi dagan na ah jote gi dagan na ci riwaaye ci ci wala boog ci xeetu njàngin sax eh, xiraa am na ñoo xam ne nañuy jàng ci xiraa ga day wane ne su setee rek am ñi wane di jàng xiraa ga su setee ba sangu kon bu seetoon te sangoogut jote gi mën naa am bu seetee te sangu nag loolaa ca gën fukkeel beeg juróom-ñett. mooy kii joteeg soxnaam te bañ mu am doom ñu ko tuddee azl azl te tey nit nit bu ko tuddee planning familial azl mooy bak sila la ca jamonoy saxaaba yi da nga daan ab ab jaam kenn daawu ko def nag as gor li muy bëgg wax ni mukk ab jaam ngay am ginaar bi nga amee sa ñeenti soxna wala sa sa ñetti soxna nga am nag sa quelque jaam juróomi jaam wala juróom-benn te jaam bu ëmb rek nekkatul jaam day gore léegi te bu goree léegi sañu too ko raxasloo sañu too ko fabeeraloo sañu too ko raxasloo ay toilette gaa yi ne kon nañ fexe ba kon di joteek ñoom te duñ ëmb loolu mu indi asal boo jëlee jaam bi di joteeg moom di joteeg moom ba li tax a am doom di bëgg a génn ndox moomu nga daal di bàyyi ndox mu tuuru ci biti loolu lañ daan def ak ñoom ah yonente ba alayhi salaatu salaam bàyyi ñoom ba mu des nag jigéen joo xam ne moom dafa feebar wala daa am problème wala dañ ko dañ koy opéré wala dafa opéré dimb bu ñëwaatee opé yooyu mooy ka exceptionnel yi nga xam ne ulama yi ñoo koy wax ak ki nga xam ne moo koy def amma ñu ne def def planning familial benn programme national loolu daa xaraam ci xeet planning programme national loolu nag daa xaraam ci xeet Assane ma wax la ko tey bu dee individuel rek la kooku dañuy xool lu tax ndax wéradi la ndax nangam la ndax nangam la door a xam nu ñuy def ak moom waaye def ko programme national nag ah loolu nag su boobaa pexe jàmbur la waaye du suñuy pexe ñun. pexe jàmbur la waaye du suñ pexe noonu ndax noonu suñ réew yi kat feesagut diggante dakaar ak jam ñaajo li fi nekk li fi mën a dëkk ci kër diggante jam ñaajo ak Thiès li fi mën a dëkk ci kër la wër calle kër ya fi nekk nii trois cent ngay joxe ñu daggal la quinze sur quinze boo joxe six cent ñu daggal la trente sur trente kër yaa ngi ne yàmbalang tabarkàlla euh, loolu mooy azl fukkeel beeg juróom-ñeent bañ koo def a gën bañ koo def bañ a wut bañ a bañ a joteeg jigéen jooju ba noppi di tuur ci biti bañ koo def gën ndax lan doom yi sallallahu alayhi wasallam daf leen na soxla ñu bari lool yowmal xiyaamati waaw tabaarkalla ñaar fikkeel bi te xam naa mooy ci bi mujj ci première parti bi incha allah parce que dana am beneen partie muy deuxième parti bi ci kàttanu suñu borom mooy ñaar ñuy takkante lañ lañ war a yéene ci sëy ba mbàkk si la est-ce que mooy takk benn jigéen rek euh, waa voici madame euh, madame a ngi nii nag est-ce que mooy loolu daanaka nag nit ñi loolu lañ ko bëggee waaye kuy ci soxna da nga ci war fa si yéene benn nga màggat ba rob ko mbaamu rob la ngeen joxante loxo jaayante loolu mooy sart yi am ci sëy nga xam ne sart bi bu amee ci sëy li nga wax bu la ci kenn génne maa kon wax léegi euh, soxna Mbayang Thiam ci 2STV yi sart bi ngeen sartante sàmm ko bu baax ndeysaan fasal yi fasal yéen ci sëy bi am ci doom yoo xam ne bu yàlla yi denc alxuraan ci ñoom la koy denc te nga am ci doom yu bari ndax Iba Maar ku am doom ju jigéen yar ko ba joxe ko sëy te jaddut laissez passer aljanna la yonent bee ko wax la akbar jigéen joo xam ne da ngaa sëy ñetti doom wala ñeenti doom yowmal xiyaamati boo jéggi siraat doom yaa lay jéggil siraat ah c'est loolu loolu lépp yàlla nga koy defal jigéen ñi jigéen ji am doom far faatu moom du la yóbbu yowmal xiyaamati dafa shahid moo ko xamsatu ma faatu ci uhud ñoo yem laa ilaha illallah mbokk yi première partie nga noonu ci adabu zifaaf bu ngeen xoolee seen montre minute li ko tey jot mooy juróomi simili ak li ñu fa yëkkatee jotaay bi tabarakallahu ci kanam tuuti ñu bàyyi suñu mbokk ci xibaar yi tubaab bi ak xibaar yi wolof yi bu nu jeex la ñu del siwaat ak yéen incha allahu ci niñ koy baaxoo ji def ci téléphone yi eh, tabarkalla eh, jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته